léegi ku mel ne Bougane Gueye Bougane gars yi dañ ne mënoon naa dem Ndar mais Ndar ku fa am Braya mënoo faa demati parce que ah. Braya maire candidat la Macky Sall bu ko amoon bu dul woon Mansour Faye kan Braya mooy nekk candidat Macky mhm. kon Bougane day mën a bàyyi Braya mu demal ko Ndar moom mu ñëw dakaar léegi nag candidature dakaar man dama ne buggaan mhm. li mu mujjee ci politique daa tàmbalee ci genn bi jëm ci bopp bi man ah. bu ma doon mooma ci bopp bi lay tàmbalee jëm ci genn bi mooy Bougane bu ko wóoree ne dafa soxla Dakar lim ñàkk ci essence ñàkk ko ci xaalis di wër Sénégal waaw su ko jëloon cause wu ci sees commune ndakaaru yi sotti ko ci. Ah. fu ne mu samp fa nit. doxal ko. Ah. tey jii Bougane du taxaw ak benn candidat fii ci Dakar. mais li mu toog dafa waroon a xëcc meeru Dakar ba jot ko doo ko yóotu Sénégal mhm. kon bu boobaa mën naa yomb ci moom mais mhm. mais dafa mel ne moom maire li muy xëccoo ni moom moom ci boppam dafa mel ne waaju ko woon waaju ko dafa mel ne lu ko bett la léegi tamit est ce que tamit du bugaan ba naan couleur yeeg nangam ak nangam est ce moom tamit teg bëtam ci Ndakaaru moo moo ko génne woon yeewi mm, askan du couleur yi loolu tamit mën naa nekk parce que bu fekkente ne ñëw na wóor ko ne moom gars duñu romb Bart ko jox li mm. a def mooy xool nu mu génn dem